aywa euh, suñu invité euh, la ñuy dalal muy Mouhamed Fall Al Amin bokk ci club des investisseurs euh, sénégalais ñu ngi leen nuyu sëñ bi Fall. maa ngi leen di fay di leen gërëm. di leen remercier si dalal bi ngeen ma dalal tey fii si groupe Futurs Médias. très bien aywa Chérif ñu door waxtaan bi ak l' invité du jour. waaw Mouhamed ba léegi comme li Charles doon jàngat rek loolu la ñuy continuer wax ci situation dëkk bi comme yéen ci wàllu koom-koom ngeen yëngatu ñu ko doon wax sànq CES club des investisseurs tiit nañ koom gi dafa mel dafa tàggatémbe tey. waaw bon comme ni ko Charles waxee ma koy remercier di ko gërëm aussi di ko féliciter ci intervention bi mu def léegi réew mi am nañu njàkkare am nañu tiit ci wàllum ci wàllu yëpp ndax situation bi nga xamante ni. Mhm. mi ngi commencer durer depuis un certain moment te li ko jur nekk réeroo ci wàllum politique entre kujje gi ak ak nguur gi donc am na ay conséquences économique yu yu yu a am solo je pense que. si lu ñuy wax indicateur économique ku nekk xam na lan mooy euh, risque pays mooy réew bu demee ba toll si élection présidentielle investisseurs yi dañuy xaw a taxaw waaye li gën a taxawloo investisseurs yi mooy non seulement on est ñi ngi dem ci benn élection présidentielle mais aussi euh, bu am violence lool et je pense que euh, am na quelque temps rek gisoon naa xaatim boo xamante ni Quai d'Orsay xaatimoon nañ ko mooy ñi nga xamante ni ñooy xelal Élysée ci wàllum Euh, politique étrangère nga xamante ni le président Macron ci moom amoon na inquiétude sur l'avenir des investissements étrangers au Sénégal notamment français parce que dañoo gis ni à chaque fois qu'il y euh, manifestation ndaw ñi dañuy dem saccager li nga xamante ni mooy ay entreprises françaises. balaa wax investissement étranger am ñi ni yàqule ñi dëkk ci réew mi ñoo ñoo ko ñoo ko dund. foofu foofu laay tàmbalee mooy moo tax ma wax ni xam nga réew pour mu développer dafa soxla investissement étranger. moo tax bu njiit ñi jàppul ni Sénégal destination bu baax la destination bu am ki ki ki kaaraange la pour ñu mën fa def seen xaalis loolu dafay xot économie bi dafay andi ay problème donc tàmbalee na ci investissement étranger bi nga xamante ni taxaw na waaye ñëw na tamit ci sénégalais yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk ci secteur informel bi ñooy liggéey ci réew mi bi may taalee sama oto di ñëw fii léegi léegi euh, defuma sax cinq minutes egg si euh, TFM cela veut dire que système de transport bi para paralysé na. te li xew Sénégal nii maa ngi ko gisoon en 2016 bi nga xam te ni déplacé naa ku nuy wax Cellou Dalein Diallo di leader opposition Guinée invité woon ma ko euh, Guinée ma wàcc Conakry euh, gis lu ñuy wax une ville morte aujourd'hui loolu la constaté Sénégal mooy Dakar est devenue une ville à ce jour la morte où il y a absolument aucune activité économique mm. te loolu aussi mën naa ni suñu démocratie moo nekk di dellu ginnaaw. parce que yaa ngi wax élection présidentielle loolu feet la war a doon démocratie maanaam bu fekkente ni élection tax na nit ñi di tiit comme c'est paradoxal. waaw loolu loolu la war a nekk véritablement élection c'est l'expression de la démocratie comme on le dit en français mais gis nañ ni Sénégal bi mu amee indépendance ba léegi ñu ngi dem ci élection présidentielle yoo xamante ni tension yi ñu ci gis mosuñ ko noté nga xamante ni ñoom a mag ñu ñu gën ñoom gën a mais man. en tout cas de mon vivant ma gis élection yu amee nii tension. moo tax premier élection présidentielle 63 moom la fa faatu woon musul am ci histoire Sénégal. waaw 63 au moins une ah, officiellement. mais yii nii moom. bari na tension ndax ñi nga xam te ni ñoo ko sekk ba léegi kenn xamul kan moo ciy nekk candidat démocratie bi euh, xaw na tagga témbe en tout cas pouvoir opposition ñi ngi Euh, jiiñante ay affaire mais li nga xamante ni ñun moo kii suñu wàll ñi nga xamante ni ay investisseurs lañ ay opérateurs économique lañ te développement secteur privé moo ñu intéressé mooy wax ni réew mi homme politique yi muñ ko euh, réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk comme j'ai l'habitude de le dire le Sénégal est une vieille république euh, où nous tous nos grands-parents se sont pour en faire un pays assez euh, émergent donc war nañu en tout cas woote dal war nañu woote si réew mi war nañu woote dal ci réew mi Euh, homme politique yi xam ni ñoom kese moomuñ ko et que Sénégal ñun ñëpp ñoo ko bokk ñoo ko war a defar mais également war nañu wax ak ndaw ñi parce que revendication ak militantisme dafa am nu ñu koy defee dafa am nu ñu koy yàgg defee ci réew mi l'escalade de violence mi ngi atteindre des proportions inquiétantes dans ce pays là ndaw ñi toogul mag ñi koy lan war a bien sûr moo tax moo tax ñuy interpeller responsabilité classe politique bi ñu xam ni Sénégal avant muy am pétrole avant muy am gaz dafa am lu ñu ko xamee ce pays là a une vieille tradition mooy fépp foo dem ci àdduna bi dafa am lu ñuy bàkkee Sénégal mooy réew mu dal la mooy réew la moo xamante ni ñi fa nekk il sont pas violents on parle partout dans le monde de l'hospitalité sénégalaise donc il est important aussi acteurs politiques yi moo xam ci opposition la wala moo xam ci pouvoir la ñu xam ni si ce pays là perd sa stabilité le Sénégal perdra sa grande richesse c'est sa alors euh, euh, fi ñu toll nii euh, yéen am ngeen tiitaange ndax ay investisseur ngeen. jël ngeen seen alal dugal ko ci seen ay mbir. mais fi mu nekk nii dafa mel ni tiitaange ñeel na leen. ñi nga xam ne ñooy bitim réew yi tamit ñi naroon a ñëw fi mu ne ñi ngi toog bi xaar fan la situation bi di mujje alors dëkk bu nga xam ne comme ni nga wax Conakry ville morte tey dakaar ville loolu ci wàllu maanaam koom-koom ban. jeexital la am ak i tamit bu ngeen ko doon xayma lan la Sénégal perte ci at yi ci fan yi nga xam ne ci lañ nekk. Euh, am na jeexital bu ama am solo boo duggee léegi si réseaux sociaux yi da gis ni lépp lu ñuy wax banque lépp lu ñuy wax assurance. lépp lu ñuy wax service ñu ngi def ay communiqué di wax ni bu 11h dinañ takkal suñu liggéey ñii di wax bu midi jotee dinañ takkal suñu liggéey. Mm. léegi léegi wax naa ni moo jógee sama kër dama taal sama oto daw ma sax 5 minutes egg si. le système de transport paralysé koom-koom bi taxaw na démb. taxaw tey te jàpp naa nii tamit dina nekk au ralenti ba lundi loolu ngir nit ku war a dem wuy ji yoon wala ngir politique lu baaxul ci réew mi la. léegi nag bon waxuma nag euh, jeunes yi nga xamante ne lu ñu romb toj ko jeunes yi nga xamante ne lu ñu romb lakk ko donc je pense que les les véritables perdants dans cette affaire laa ce n'est pas les hommes politiques mais c'est finalement les chefs d'entreprise et les opérateurs économiques qui ne s'intéressent même pas à l'activité politique donc moo tax ñi nga xamante ni ñoo nekk ci réew mi comme ni ko Charles waxee léegi parce que Sénégal dafa am ay leviers yoo xamante ni moo ñu mës a et les religions ont toujours joué un rôle pour participer à apaiser la situation jot na ñin ñi jug mois je fais partie de ceux ñi bokk club des investisseurs sénégalais nga xamante ni depuis six mois maa ngi wax président Babacar Ngom du group Sedima ak président Atepa di ko wax tamit Serigne Mboup ak Beydi Agne que war nañu jug que opérateur économique yi war nañu jug dajaloo ngir ñu xool naka la ñuy waxtaanee ak leader politique yi ndax je pense que même cette guerre là entre l'Ukraine et la Russie qui divise le monde se terminera sur une table les grandes guerres se terminent sur une table Ousmane Sonko doomu Sénégal la Macky Sall doomu Sénégal la ñu nekk ci situation politique doomu Sénégal war nañu xool suñu réew fi nga xam ni moom la tollu tey ci àdduna bi man damay voyager mais fépp fu ma dem ci àdduna bi damay gis ni euh, le monde bouge et que nit ñi ñi ngi doxal seeni réew ni nga ko war a doxalee nga ñëw Sénégal nag euh, xool situation bi nga xam ni démb ci minuit rek baare nañu péage bi commencé taal ay pneu ce n'est pas une bonne image du Sénégal que nous sommes en train de connaître waaw jërëjëf Mohamed maa lay nuyu baax a baax di être de toi merci merci ah, parce que je vraiment très efficace si lu ngay def ba dem bëgg a xam tey bu ñu doon évaluer si wàllu koom-koom si ñaata xaalis par exemple secteur privé ak investisseurs yi si fan yi bu ñu ko mënee évaluer même si au niveau des impôts xaalis bu dul jeex mhm. est-ce que am nga si idée euh, euh, Charles c'est une c'est une grande perte mhm. bon je, je, je n'ai pas assez d'outils pour faire comme ça de manière exhaustive ni on perd tant de chiffres le temps mais la la, situa la situation me paraît très compliqué te bu ngeen seetee balaa ñuy egsi ci situation bi nga xam te moom lañ nekk di dund euh, en mars deux mille vingt et mais kan moo mën a xayma li nga xamante ni taal nañ ko ci réew mi en mars deux mille vingt kan moo mën a xayma ñaata oto lañ lakk ñaata commerce la ñu taal ñaata nit ñoo ñàkk seen alal ci situation bi nga xamante ni jàngat nañ ko en mars deux mille vingt et te man dama jàppoon ni bu ñu jógee ci mars deux mille vingt et un quand vu ces certaines épreuves où les gens ont souffert par rapport à certaines situations dama jàppoon ni waroon nañ woote dialogue national wala waroon nañ daje wax ni lii buggatuñu mu am ci plus jamais ça mais on a vu aucune initiative xam nga li doy waar ci situation bi mooy depuis 1960 réew mi toll na ci xat-xat ak njàqare goo xamante ni aujourd'hui les Sénégalais ont peur véritablement mais je ne vois en tout cas et je m'en désole aucune initiative aucune initiative du secteur privé aucune initiative auprès des religieux aucune initiative auprès de la société civile pour qu'on apaise la situation et qu'on fait appel à notre culture mooy un pays stable un pays de paix mooy des gens calmes et sereins loolu la ñu xamee sénégalais mais. Euh, mais religieux yi ñu ngi def seen liggéey de. Euh, en tout cas peut-être waaw peut-être ci suuf waaw peut xam nga tubaab bi sax dañuy kenn du ko def ci kaw peut ñu ngi koy def ci suuf mais yëgaguma am na lu ñu def ñu mu ne fànn ñuy wax ak nit ñi chaque jour mhm. est-ce que xalaatuloo est que peut tey amul loo xamante ne rax na ba di war a yàq ce que de plus précieux mooy suñu cohésion ak suñu démocratie c'est ah la violence Sénégal xamuñu woon violence bi nga xamante ni ñu ngi koy seetlu muy am ay proportions inquiétantes di ñëw ci réseaux sociaux yi kenn buggatul wax euh, ku wax ñu saaga la euh, léegi ñit ñi ñi ngi fitnaalante les gens à se faire peur ci côté bi ak ci côté bële ce n'est pas notre culture ce n'est pas notre culture xam nga il faut il est important de savoir ce que l'on sait ce que l'on est dans la vie mm-hmm. nous sommes des Sénégalais c'est quoi être Sénégalais d'abord il ñu mën a jàngal ñu ni na lañ nan la ñuy defee militantisme c'est quoi être sénégalais euh, c'est notre culture c'est quoi notre histoire c'est quoi est-ce que tu vois yooyu c'est important ñi ni xam ko le sénégalais n'a jamais été reconnu être comme une personne violente on a vécu des choses en Afrique notamment au Rwanda en en Côte d'Ivoire où j'ai été en 2010 plus de 3000 morts à cause véritablement de tensions politique te mi nag loo wax ñu ni du mës a am Sénégal parce que maam li maam Laay Serigne Touba mais il faut que nous soyons prudents et que ce pays-là est en train de verser et de tomber petit à petit dans une certaine violence qui demain peut surprendre la communauté internationale et nous-mêmes les Sénégalais donc on fait appel au calme on fait appel à la sérénité en tant que membre en tout cas du secteur privé baat bi nga xamante ni moom lañ mën a yëkkati da ñu jël position dans quel man li ma jàpp mooy réew mi ñëpp war nañ jub li ma jàpp mooy képp ku am kàddu képp ku am sañ-sañ képp ku am xam-xam war nga jël see responsabilité parce que euh, Charles pour moi on a trop laissé d'espace aux hommes politiques te moomuñu réew mi je te li ma jàpp ni ñun dañoo bàyyi espace homme politique yi ñuy buum di bumi di décider di jàppante di dem ak dikk alors que ñoom ñooy décider waaw ah. ah, ah, mais mais ñoom ñooy décider mais li nga xamante ni mooy dagan baatu askan wi ñoom lan fal waaw mais li nga xamante ni moomuñu réew mi de moomuñu réew xamante ni mooy koom-koomu réew mi mais xam nga pourquoi man ma ànd ak yow si loolu uh-huh. dañuy xool tey presse bi ça veut dire quoi nous sommes euh, nous des porteurs d'eau uh-huh. des porteurs de valise de politique mm alors que tey c'était non non c'est-à-dire ñun ñëpp ñëpp ñooy taxaw day ne no c'est-à-dire votre temps n'est pas le nôtre parce que suñu économie mënul daal je suis totalement d'accord avec toi mais tey je veux dire est-ce que le secteur privé investissement étranger ak investisseurs nationaux euh, investisseurs étrangers nationaux. Mmh. est-ce que ñoom tey mënuñu liggéey si loo xamante ne. parce que ñoom ñoo am aussi la puissance mmh. économique. est-ce que mënuñu liggéey d'une certaine manière. pour ramener toutes les parties à lors d'une rencontre au moins si si biir si biir fan yi di am na ay initiative yoo xamante ni jël nañ ko fi je pense que vous avez vu il y quelque temps le président Babacar Ngom Souleymane déplacé woon na dem ba ci siège yeewu askan wi déplacé woon dem ba. Euh, seeti candidate Aminata Touré boobu moo nekkoon candidate pour jël ay initiative mhm. secteur privé bi dañu am inquiétude parce que ay sénégalais lañ. te fii la ñu dëkk waaw ay ci la ci élection législative yi ay sénégalais lañ fii ñu dëkk euh, ñu ngi nit ñu ngi concerté wu. ñu ngi concerté wu euh, ci suñu groupe WhatsApp yi des fois da ngay gis ni euh, ñu bind ay affaires pour wax ni la situation est assez sensible et compliquée. mais je considère que dans les semaines à venir dinañu xool naka la ñuy dajaloowee en tout cas secteur privé bi pour. jéem a dox jàmm ci mm. diggante euh, ñi nga xamante ni ñooy sécureur mi bi ñuy def élection législative tamit ku ñuy wax yeewi askan wi ñëwoon nañu rencontrer secteur privé bi pour wax ni li nga xamante ni moom lañ mëbët ci par rapport à élection législative waaye aussi mm. candidat Amadou Ba ak Aminata Touré ñëwoon nañ te boobu tamit j'avais l'occasion euh, de parler au leader de PASTEF Ousmane Sonko à qui j'avais euh, ma interpellé ko wax ko ni ko 17 de vos manifestants ont été tués dans des euh, circonstances jusqu'à présent non élucidées sur des manifestations que vous avez voulu mais, organiser. mais boobu da de charme la rek maanaam muy Amadou Ba Aminata Touré muy Benno à l'époque ak Yewwi dañ doon ñëw pour opération de change la mais assemblée nationale mu benn initiative comme ni ko. tout à fait tout à fait bu ñu jël ngir ñoŋal nekkinu secteur privé wala koom-koom. mais occasion la woon loolu mën na ne mais occasion la woon ci ñun ñi nga xamante ne ñooy opérateur économique. ñu interpeller la responsabilité de la classe politique sur la sur sur la situation sociale économique et sur la situation de notre démocratie. parce que démocratie boo ko xoñee rek ñu ni dañuy fipp démocratie boo ko xojee rek violence dafay am je pense que euh, ces violences la son notées un peu partout France laa jóge yaa même pas dix jours gis naa fa tamit violence bi nga xamante ne am na et la France est une grande démocratie nit ñi ñoo bëgg liberté nit ñi ñoo bëgg di exprimer seen liberté je pense que le pouvoir aussi doit un peu revoir cela ñu permettre aussi nit ñi bu ñu bëggee marche am na fu ñuy marche nit ñi bu ñu bëggee ñaxtu am na fu ñu mën a dox ñaxtu waaye Charles man mi dëkk parce que man maa ngi dëkk ci kaw avenue Cheikh Anta Diop mais bu ma liiree euh, l'arrêté du préfet euh, ou du gouverneur de Dakar mais ku nekk xam ne aussi ni diggante rond université jëm euh, rond-point Médina foofu kenn mënu faa marche et que mënoo marche aussi romb biir marché Tilène loolu tam dañuy interpeller leader opposition bi que bu ñuy marche aussi ñu xool fi ñu ko mën a defee je pense que le préfet de Paris si tu lui euh, on va organiser une marche mais au que des Champs-Élysées mais il va dire que ce n'est pas possible parce qu'il y a des mais yoo xamante ni aussi ak ah, des boutiques qui sont là-bas mbir aussi dafa xam fu ñu koy defee aussi ñu wax ko opposition bi aussi seen responsabilité mooy ñu xool fu ñu mën a marché ñu dem marché foofu waa et puis ñu bañ aussi yàqal ñi nga xamante ni parce que Charles gis nga kii yeewu bàyyi jabaram bàyyi doomam parce que ñëpp am nañ jabar am doom ñun ñëpp am na fu ñu yaakaare suñu salaire am sa benn cantine wala am sa benn boutique ñëw fekk mu tàkk gis nga santiment boobu euh, c'est un sentiment que nous devons voilà que nous devons éviter aussi pour les gens te loolu mi ngi commencé fréquent ci réew mi je pense que gis ngeen ki nga xamante ni ndaw la comme ñun am ay boutique di jaay téléphone di taxale ministre de la de l'intérieur sa dem na seeti ko yeewu aussi ñëw ñu dajji sa boutique yóbbu yëpp gis nga femme bi nekkoon fi rond point Mermoz di jaay ton ak nambeeg yooyu ñu taal aussi boutique am waaw yooyu aussi war nañu xool luñ ko mënee dakkal mais aussi dafa am lu fo dafa am dafa war a dakk lu fondamental aussi lu ma bëgg a wax mooy gis nga homme politique yi ñun lañ nekk di nax rek mais ba fu ñuy mujjee ñooy toog waxtaan et donc man li nga xamante ni moom laa bëgg a wax et j'interpelle la responsabilité du président la république mm-hmm. mooy le Sénégal pour moi ne mérite pas cette situation-là. Mm. et ñun bi ñu koy fal amoon nañ yaakaar bu rëy rëy rëy rëy moom mm. yaakaar googu ñu ngi continuer di ko am. parce que sur le plan économique aussi ku góorgóorlu la sur le plan économique. je pense que aujourd'hui le bateau FPSO Léopold Sédar Senghor bi nga xamante ni moom moo war a manque mm. pétrole beeg gaz bi départ na Singapour. pour ñëw ci Saint-Louis pour génnee gaz ak pétrole Sénégal loolu moo war a nekk débat bi tey. loolu moo war a nekk tey suñu fierté mais au moment où le Sénégal s'apprête à exploiter son pétrole et son gaz ñuy gis yenn tension yi nii je pense que. c'est une wa pétrole bi sax sori na am na benn journal bu ne Inde ak ñuy bàyyi ñuy importer ceeb xam nga te loolu war ah, ah. loolu te ah, débat la souveraineté alimentaire loolu tax yooyu lañ war a yooyu lañ war a yooyu lañ war a waxtaanee loolu tax ma laaj la sànq est-ce que amul lu si rax est-ce que amul loo xamante ne xëy na dugg nañu benn genre virus mu nekk moo créé pratiquement problème si dëkk euh, réew yu am pétrole yëpp ak gaz mhm. problème yi dañuy mhm. dund mais mais mais amul loo lu si rax mais en tout cas il y a un réel danger au Sénégal quand tu écoutes le discours des hommes politiques quand tu regardes certaines situations euh, euh, incarnées par une certaine jeunesse il y a de quoi avoir peur dans ce pays-là il y a de quoi être inquiet et nous devons nous indigner par rapport à cette situation-là et j'interpelle mais toute la classe politique d'abord mais également le secteur privé sénégalais n'a qu'à prendre ses responsabilités parce que réew mi encore une fois ñoo ko bokk ñoo ko moom mm-hmm. mënuñoo nangu kenn di ko tànn ngeen jël ci ndaw ñi tam ci wàllu euh, kii bi chômage bi xeex ko emploi bi aussi parce que secteur privé aussi loolu baax na ci ba état bi rek bañ di ko gar daaju moo tax gis nga gone yi di frustré di taala ko toj ah, ah, absolument absolument man démb samay employé dañu ñëw samay employé dañu ñëw démb ne ma euh, monsieur Fall ñun suba duñu liggéey man leen lu xew <laughs> ñu ni ma daa xamoo li xew <laughs> ñu ni ma gis nga situation bi man Kër Massar laa jóge kii ni ma man euh, fii laa jóge et donc alors que ñun amoon nañ tey liggéey bu ama am solo nekk ci ay affaires yu ama ama am solo léegi nag bennum ñaata sénégalais la ñuy convoqué par jour ñuy dem euh, wuyu ji ñaata sénégalais ñooy am problème ñaata procès ak ñaata dossier ñoo nekk ñoo nekk euh, tribinal lan moo tax nag dossier bi am autant de tension lan moo tax dossier bi mën a indi Sénégal situation bi nga xamante je ne suis pas politologue mais xam naa ni situation bi war nañu jug pour taxaw ci ngir indi mm. ci saafara merci beaucoup Mouhamed Fall Al Amin ñu euh, bokk ci club des investisseurs du Sénégal ñu dem léegi ci ñaar yéeni kaay groupe Futurs Médias muy l'Observateur ak Record